يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يوتيوب Sud FM it dana ko teg ci 22h Walf it dana ko teg leer gi bu Louga dana ko teg ci bu 9h jotee Fawzu FM it dana ko teg ci 20 kon mbooleem rajo yi képp koo xam ne jataay bi raw na la boo ko toppee mën nga ko dégluwaat bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali ne suba incha allah danañ dalal Serigne yu Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal moom Cheikh Ahmadou Bamba ngir mu ñëw it séq ak ñun ci jataay yi kon ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ko tawféex ba li mu bëgg a leeral lépp mu defal ko na mu gën a jàppandee ci moom ñiy déglu it mu may leen ñi nga xam ne buñ déggee ay wax topp la ca gën a jub te jëfandikoo ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu euh, ñoo ngi nuyu mbooloo mi kilifa yu fi teew ñépp Euh, balaa ñoo tàmbali waxtaan bi dañuy nuyu sunu ay kilifa euh, sunu kilifa mooy Serigne Bassirou Antaña di sunu xalif yàlla def tey mu nekk fi xalifu borom daaru ñuy toppale ci nuyoo bi sëriñ Khalid Mbacké di rakkam di nuyu Serigne Cheikh astu Faye Mbacké di nuyu sëriñ Basiiru Abdou Khoudous bi nga ne sànq jaar nañ ci këram waaye di nuyu tam euh, jiital euh, jotaay bi nii di Serigne Abdou Samad euh, jotaay bi nag comme ni ko kilifa gi waxee jotaay bu am solo la ndax jàngalum diine dafa amaale pàcc bi nga xamante ne xam xew-xew jamono la xam li xew ci àdduna la te thème bii nii ci loolu lañu ñu bëgg a ci loolu la ñu bëgg a euh, ci thème bi waaye euh, ci waxtaan bi bëggoon naa euh, commencer par présenter d'abord sunu waxtaan na leen ci sunu service lan la ñu liggéey ndax fii nii suñ nee police ñëpp foog nañ ne xam nañ police waaye soo xoolee police. Euh, ci fukki bànqaas yi mu am soo xoolee ba xool nit ñi ñaar lañ ci xam walla ñett ci fukki bànqaas yi police am mooy soo xoolee lépp luy commissariat lu nit ñi gën a xam mooy lépp luy commissariat ak post de police ñoom ñëpp ci benn bànqaas lañ nekk di direction mooy lu ñuy wax direction euh, direction de la sécurité publique moom moo moom mooy yilif lépp luy commissariat soo paasee ci loolu toujours ci même euh, ci beneen bànqaasu police bu nit ñi bi bànqaasu police bi nit ñi xam soo xoolee moo di waa GMI groupement mobile d'intervention mooy ñuy sol béere yu rouge yi su ay émeute amee ñoom ñooy intervenir soo xoolee ñooñu aussi nit ñi xaw nañ leen xam mais soo ci jëlee ci ñaar yooyu noonu euh, juróom-ñett yu yeneen yu des soo xoolee ba ci biir ñu ko xam bëriwul. am na ci yooyu noonu benn bu tudd DST mooy moom mooy gérer renseignement maanaam moom mooy euh, soo xoolee càmbar lu xew ci réew mi di di di di jéem a xool dara di di jéem a saytu luy luy xew suba balaa looloo xew pour ñu waajal ko euh, soo xoolee am na beneen direction bu tudd direction de passeports mooy tey ku soxla passeport police moo la koy jox am na direction ñun bu ñu nekk mooy direction de la police judiciaire te bu ci gën a siiw mooy dig maanaam banqaas yooyu noonu dañoo am ay kuréel yu nekk ci biir soo xoolee direction de la police judiciaire ñoom ñun suñu liggéey mooy xeex lépp luy criminalité maanaam criminel euh, lépp li nga xamante ne nit bu jóg pour lor euh, askan wi pour ñu jéem a xool nu ñu koy jàppee jébbal ko yoon ci ci biir ci biir direction boobu noonu am nañu ñeenti ñeenti kuréel yu fa nekk benn bi mooy DIC division des investigations criminelles bu sénégalais gën a xam euh, commissaire de benn commissaire de police moo ko jiite. beneen bu ci topp mooy division spéciale de cybersécurité mooy division man bi ma jiite am division de la police technique et scientifique ñooñu seen xam-xam mooy dara su xewee fenn ñoom ñooy ñëw lu mel ni tey euh, suñu reyee nit ñooñu ñooy wàcc pour jéem a xool def analyse yi comme ni ko nit ñi di gisee tuuti ci film yi. am beneen bi nga xamante ne DAG la tudd boobu wàllum kayit lépp luy kayit ci euh, banqaas boobu noonu moom moo koy gere donc euh, noonu la ñu noonu la ñu mën a limee ba ñu ba ñu ba ñu mat donc euh, pour ma dugg tuuti ci ñun lu ñuy lu ñuy liggéey mooy mooy ñun cybersécurité la ñuy liggéey ak lutte contre la cybercriminalité cyber cybersécu cybercriminalité mooy lan mooy lépp li nga xamante ne loraange bu war a mën a jóge ci xarala yu bees yi. mooy lépp li nga xamante ne ñaawteef la bu ñu defee ci téléphone bu ñu defee ci ay ordinateur bu ñu def ci internet euh, ñun ñoo ci ñun ñoo yëngatu ci wàllu woowu noonu te euh, soo xoolee direction euh, division boobu ñu ngi koy créé en 2013 boobu jamono cellule la woon rek bi ñu demee tuuti en 2017 ñu créé benn division bi nga xamante ne tey division boobu moo fa nekk. ci biir ci biir division boobu euh, am na am am na ay yeneen kuréel aussi yu yi nga xamante ne euh, man maay seen kilifa mooy division euh, mooy pôle bu ñuy wax pôle judiciaire bi nga xamante ne am na ay bureau benn biro bi mooy lépp li nga xamante ne lu ñuy wax atteinte au mœurs et à la vie privée tey giseen ne saaga ci réseaux sociaux yi bëri na tey menaces yi ci réseau sociaux yi bëri na jéem a yàq der jéem a yàq nit ci ci ci ci image ndax tey lu gën a yomb ci nit pour nga attaqué ko euh, nekkatul sànni ko xeer wala dóor ko mais yàq deram donc euh, loolu am nañu bureau spécial bi nga xamante ne loolu lay toppatoo am nañu beneen bureau bi nga xamante ne képp ku jóg pour faagaagal wàllu nguur ah, wàllum nguur mooy lu ñuy wax euh, atteinte à la sûreté de l'État wala li nga xamante ne ci wàllum terrorisme la la la jëm am nañu benn bureau bi nga xamante ne loolu rek lay toppatoo ñu am beneen bureau bi nga xamante ne aussi euh, boobu euh, sa mbokk séeréer yi lay lay gën a lay gën a topp mooy lépp lu jëm ci wàllum yi ak euh, infraction financière mooy ñi lay woo nax la pour nangu sa xaalis te nekkuñu nekku leen ci même bërëb donc genre enquête yooyu noonu ñun ñoo koy ñun ñoo koy toppatoo ndax enquête yooyu noonu am na leneen lu ñu laajte am na am na leneen maanaam dafa foog nga utiliser xarala yu bees yi pour mun a d'abord ne serait-ce nga identifier nit ki am nañu beneen pôle bi nga xamante ne laboratoire la maanaam lépp luy appareil téléphone tey police mu muy fii ni Touba lépp ci biir réew mi fépp fu ñu fekk appareil téléphone ci benn ci benn defkatu ñaawteef wala en tout cas ñu yaakaar ne kii defkatu ñaawteef la appareil yi ñun lañ koy yónnee dakaar pour ñu pour ñu càmbar appareil bi xool kiil ci lan la nekk lan lay liggéey est-ce que li ñu koy waxal moom moo ko def donc euh, am nañu aussi benn lu ñuy wax unité de yi ni ngay gisee alkaati yi di di taxaw ci mbedd mi ci internet bi noonu la amee ay alkaati yu taxaw ci internet bi maanaam mun nga def benn commentaire bu ndaw ci internet bi walla am li nga xamante ne sànni nga ko ci internet bi nga jàpp ne lii amul solo fekk lu am solo la même su dee wowuñu la walla ñëwuñ jël si la mais loolu dañ koy topp. surveiller ko xool loolu yow lan nga ci jublu unité de cyberpatrouille boobu noonu donc lépp li nga xamante ne ci yenn aussi euh, yenn façon groupe WhatsApp bi dañuy def suñu ay pexe pour bokk ci groupe bi pour jéem a xam ñi lu ñuy waxtaanee lan lan euh, loolu dafay jëm ci wàllum renseignement léegi mu am beneen pôle bi nga xamante ne mooy relation internationale parce que liggéey bu ñu liggéey liggéey bu liggéey bu nga xamante ne benn réew mënu ko liggéey maanaam nit mun na toog Europe def fii ni ñaawteefam wala woo def fii ni dara nit soo porté plainte am nañ bureau bi nga xamante ne moom mooy joué rôle ak euh, di liggéey ak Interpol Interpol mooy maanaam police police àdduna bi yëpp dañoo dañoo def benn kuréel pour mun a mun a jëflanteel nga xam ne ku fi def dara soo nekkee Italie sax ah soo nekkee Italie waa Italie mun laa jàpp jëbal la Sénégal euh, kazaalika aussi soo defee dara Sénégal def ko benn italien italien bi mun a porté plainte ñu jàpp la fii nii euh, juge la donc euh, loolu loolu mooy sunu liggéey te lu lu lu weesu loolu aussi dañuy def lépp luy formation euh, maanaam lépp li nga xamante ne tàggat la tàggat euh, sunu mbokk alkaat yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ci ci nguur gi la ñuy liggéey waaye soxla tàggat ci sunu sunu ci sunu ci sunu domaine donc pour tuuti waxtaan ci ci sunu ay lan la ñuy def aussi maanaam soo xoolee mooy defkatu ñaawteef yu yi nga xamante dañuy utiliser xarala yu bees yi soo xoolee 2012 maanaam plainte yi ñu doon jot ci année bi yëpp euh, non 2017 euh, plainte bi ñu doon jot ci année bi yëpp maanaam weesuwul woon ñaar téeméer plainte ñaar téeméer tey tey euh, tey tey jii nii may wax ak yéen maanaam 2000 2022 maanaam année bële passé jotoon nañu ñetti junni ak juróom benn téeméer plainte yi nga xamante ne Euh, nit ñi ñoo ko nit ñi ñoo ko ñooñu ko signalé donc pour won leen rek maanaam te euh, kii ni xarala yu bees yi effectivement yombalal nañ ñu lu bëri ci suñu dund waaye nag ñoo ngi indi loraange ci lu bëri bëri ci ñu koy jëfandikoo waaye ay sambaabooy aussi yu nga xamante ne dañuy dañuy dañ ciy buruxlu pour pour mun a mun a def seen ñaawteef léegi nag thème bi mooy wàllum euh, intelligence artificielle thème bi bi ñu bëgg waxtaanee mooy wàllum intelligence artificielle intelligence artificielle euh, kilifa gi bi ma woowee ne ma dañ dañoo bëgg nga tënk ko en wolof nga wax ñu intelligence artificielle euh, en wolof ah ma bi ñu raccroché ma ne ma ne ma sama waa ji nii ah man pël laa de nañu ut ba kenn ku dégg wolof pour mu tënkal ñu ko ndax ndax dafa dafa xaw a dafa xaw a bees. te même nasaraan gi nasaraan gi ko ko tuddee noonu ba léegi nii ñoom ñëpp amuñu fi ci dëgg-dëgg même dëgg-dëgg waaye soo xoolee tey euh, maanaam pour euh, ñu ñu dugg ci sujet bi euh, soo xoolee tey nit ñi ñoo ngi créer ay appareils yi nga xamante ne ñoo ngi def ay affaire ay ñu am ay xarañ ay xarañteef yi nga xamante ne ci nit rek lañ ko xamee woon ci nit rek lañ ko xamee woon. mooy tey am na ñoo xamante ne yor nañ seen kër ay làmp yi nga xamante da ngay dugg ñu tàkk soo génnee ñu fay loolu maanaam mooy ki nga xamante ne xam na ne dugg nga maanaam am na lu ko won ne dugg nga am na lu ko won ne génn nga soo jëlee ci nit nit maanaam dafa am lu ñuy wax les organes de sens ah les organes de sens organes de sens yi maanaam juróom lañu maanaam nit maanaam lu muy lu muy mën a comprendre li muy mën a déggee eh, ci ci fu mu ne mooy d'abord gis-gis bët mooy gis dégg-dégg euh, kii nii mooy euh, san sentir maanaam euh, ci ci ci ci wàllum odeur ci wàllum goût ak soo laalee nit lu muy lu muy sentir noonu maanaam cinq organes de sens yooyu lañu xamee nit léegi nag nasaraan gi dañoo nekk di di di dañoo xalaat tey nan la ñuy def ba xarala yu bees yi ñu mën leen defal même même en tout cas même sensation yi même euh, même comportement bi donc euh, ci sujet bi dañuy bal euh, ci sujet bi dañ ciy waxtaan ci cinq ponts d'abord dañ dañu waxtaan ci généralité yi ak définition yi comme li ma leen wax mbirum intelligence artificielle ku nekk ak ni mu ko déggee ku nekk ak ni mu ko nekk di ko jëfandikoo actuellement ndax lu bees la beneen bi mooy intelligence artificielle pour kan la pour lan la est-ce que ñun soxla nañ ko est-ce que ñun ñoo koy utiliser ñun ñi euh, ci euh, maanaam ci suñu ay koom-koom ci sunu dundin nan lañuy def ba jëfandikoo ko te duñu lool beneen bi mooy ñun ñi waa police dinaa leen wax un nan la ñu nekk di jëfandikoo mbirum intelligence artificielle pour maanaam gën a yombal suñu liggéey waaye beneen bi mooy intelligence artificielle tey soo duggee euh, maanaam mooy jox xarañte li nga xamante ne amul xel Euh, tey soo xoolee ci àddina bi ñoo ngi waxtaan bu baax a baax ci danger am yi maanaam ci loraange yi mu mën a andi ci loraange yi mu mën a andi dinañ ci ñëwaat ak euh, benn débat bi may posé ndax waxtaan gi bëggoon naa su ma waxtaanee ba pare nit ñi posé question mais aussi nit ñi wax ci wax wax li ñu xalaat ndax leer na ma am na ci njotaay bi ñi nga xamante ne ñoo ma xam gën a xam li may wax nii ci ñoo ngi toog fii di noppi donc ñooñu aussi seen participation dinañ ko soxla pour ñu gën a ñu gën a maanaam enrichir waxtaan bi. Euh, d'abord suñ nee nit lan mooy nit ah, lan mooy nit lan moo tax nit différent nit wuute ak benn mala lan lan moo ko lan moo maanaam soo duggee ci mbirum intelligence artificielle foog nga dugg ci lan mooy intelligence waaw ah, lan mooy intelligence euh, intelligence ci ci wolof yaakaar naa ne mun nañ ko tekkee comme xarañ ndax mun na nekk muus mais muus mooy xarañ bi nga xamante ne ci wàllum xalaat la la demee mais pas ci wàllum jëf mais soo soo soo utiliser terme xarañ ci wolof normalement dafa amaale parti bi nga xamante ne sa xel lay laajte muus mais amaale parti bi nga xamante ne ci jëf la laajte mooy da ngay gis benn menuisier par exemple mu defar benn affaire nga ne ah menuisier bi vraiment xarañ na ndax boole na xalaat bi ak jëf bi ndax balaa moo defar table bi dina toog mu xalaat table bi nan laa ko war a mën a defaree loolu la ñuy wax conception en français à ah, ci loolu d'abord la ñuy njëkkee lan mooy lan mooy xarañ lan moo tax nit xarañ lan moo différencier nit ak la le reste ndax nit suñu nee dafa intelligent am na ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne ki nga xamee ne soo ko joxee téere tey mu mokkal ko tey kooku kooku ku muus la ku xarañ la est-ce que loolu rek doy na pour wax ne nit dafa xarañ parce que mokkal rek su dee mokkal rek ordinateur tey moo ñu tere mo moom ñu dàq mokkal soo jëlee tey mokkal maanaam am na ñi nga xamante ne dinañ mokkal mais. amuñu xelu jëfee maanaam euh, comprendre lu ñu lu ñu lu ñu mokkal ni lan la donc dafa am capacité de compréhension d'abord loolu moo njëkk ci wàllum intelligence soo koy jël nit su su jëlee dara daf kaa nit bu normal war na ko maanaam capacité de compréhension da nga kaa war a gis ci moom ak ci doxalinam capacité de compréhension bi nag lan lay wundu mooy euh, ci tubaab ñu ne être capable de saisir et de comprendre de nouveaux concepts maanaam lu bees su xewee. ah lu bees su xewee même su dee nit ki musul jàng lii musu ko gis mais xelam togg li nga xamante ne xam lu jaadu def ko am lu ñuy wax capacité d'apprentissage capacité jàng capacité jàng ci intelligence la bokk maanaam euh, nit ki nga xamante ne soo xoolee même ci ci ci taalibe yi da ngay gis kii tey soo ko jàngalee mu gaaw mokkal keneen ki soo ko jàngalee moom dina gën a jël temps pour mu mokkal loolu si loolu tekkiwul ne intelligent wul mais ñoom ñaar amuñu même amuñu ci maanaam du même capacité yi la ñu am soo xoolee beneen bi mooy raisonnement logique mooy lu yenoo maanaa ah lu yenoo maanaa nit looloo ko différencier ak euh, ak aussi yeneen kii maanaam su gisee lu bees sax soo ko waxee lu yenoowul maanaa nit dina xam ne lii nga wax nii même su dee mosu ko gis mosu ko dégg dina jàpp lii nga wax nii mënul nekk waaw ah, nekk loolu mooy capacité de raisonnement euh, raisonnement logique beneen bi di lu ñuy wax créativité ah beneen bi di di di lu ñuy wax créativité créativité mooy ku am capacité sos lu bees ah sos lu bees mooy tey soo xoolee appareil téléphone yi euh, soo xoolee tey maanaam ci ni ñuy tabaxee ni ñuy dundee ci boppam soo xoolee loolu dafa am à chaque fois nit yu am capacité sos lu bees pour loolu noonu mën a possible pour avancer yooyu noonu mën a possible. am beneen euh, am beneen capacité bi nga xamante ne mémoire lañ koy wax maanaam ki nga xamante ne mun na tari luñ ko jàngal mu tari ko loolu foog mu boole ko ci capacité pour ñu mën a ne kii dafa intelligent euh, am intelligence émotionnelle ah intelligence émotionnelle euh, maanaam mooy li nga xamante ne dara su xewee yow da ngay jëli da ngay comprendre micro Euh, li ñuy wax intelligence euh, émotionnelle euh, li ñuy wax intelligence émotionnelle mooy dara su xewee nga mën a xam ban yéeg-yéeg ak ban comportement nga ci war a am beneen bi di capacité à résoudre des problèmes maanaam euh, su problème teewee nga mën a xalaat sa xel mën a togg euh, dara pour nga régler problème boobu noonu loolu loolu foog nga am ko pour ñu mën a ne kii dafa intelligent et bu ci mujj mooy adaptabilité mooy ki nga xamee ne suñ ko yóbbee ci lu ci lu bees ah ci lu bees maanaam dina dina xelam dina togg benn affaire pour mu mën a xam ne lii lu bees la waaye. nii laa ko mën a war a mën a doxalee donc yooyu noonu soo xoolee lim na wit maanaam juróom euh, juróom euh, ñaar juróom-ñetti ponk yi nga xamante ne yooyu la nit dajale pour ñu mën a ne kii dafa intelligent léegi nag objectif intelligence artificielle mooy yi ñu wax nii ñu mun ko reproduire ci machine waaw ñu mun ko reproduire maanaam ñu mun ko ñu mun ko defar te machine di ko def tey soo xoolee am na ci dëkku tubaab yi ay lu ñuy wax ay robot ay robot mooy maanaam ay mooy ay weñ daal yu ñu yu ñu dajale defal ko euh, li ñuy wax électronique def programmation ba li nga xamee ne day comporté wu comme ci yenn anam yi day comporté wu comme nit tey soo xoolee ci internet bi da nga gis par exemple lu mel ni Dubaï lu mel ni Dubaï am na seen benn émir garde corps am robot la du nit maanaam robot fu mu dem garde corps bi topp ko te soo ñëwoon di ko jege moom dina la gis dina xam ne kii dafa ñëw pour pour attaquer man ki may protéger yor na arme yor na lépp li nga xamante ne war na ko jëfandikoo pour protéger nit kooku noonu donc nan la ñu def ba jël maanaam xelu nit dugal ko ci dugal ko ci wa ci ordinateur xelu nit dugal ko ci machine en réalité loolu loolu mooy un peu intelligence artificielle beneen bi mooy tey soo jëlee lu mel ni ay pigeon affaire yooyu nga ne pison intelligent wu akay ah, pigeon intelligent na mais da intelligence am dafa am fu mu yem intelligence am dafa am fu mu yem parce que su xiifee dina xam ne xiif na su dina xam fan la war a mun a dem wëri lu muy lekk dina xàmmee lu mu war a lekk ak lu mu warta lekk donc loolu tey euh, defar nañu ay ay ay jumtukaay yi nga xamante ne Euh, dina comporter wu exactement comme pigeon boobu noonu di war a mën a naaw war a mën a euh, reconnaître tey soo xoolee aussi guerre bu nekk di di di di di di xew Ukraine soo xoolee foofu it ay mbirum drone lañuy waxtaanee guerru drone la ñuy waxtaanee drone yooyu noonu dañ leen programmer ñu am ay intelligence artificielle mun a xàmmee kii ñoo far kii nii faruñu pour mu pour mu bàyyi foofu noonu mu sox foofu noonu ay bomb donc pour ñu ñëw ci définition intelligence artificielle dañoo ne intelligence artificielle mooy euh, machine informatique bi nga xamee ne day am ay caractéristiques nit maanaam day def li nga xamante ne normalement machine lu lu dul mbindeef waru ko def lu amul ruu waru ko def normalement donc mun na nekk machine aussi bi nga xamante ne day toppandoo nit lu muy def waaw nit lu muy def. Euh, ci xel kese wala ci jëf euh, je sais pas su dee am na fi ñu xa euh, kii nii ci étudiants yi ñu xam euh, chat GPT ci étudiants yi est mbaa am na ñu ñuy utiliser chat GPT chat benn benn benn xarala la bu bees bi nga xamante ne bi ñu ko génnee motogul ay trois ans motogul ñetti ñetti at bi nga xamee ne tey maanaam lépp li nga xamante ne presque étudiant wala élève waroon na ko mën a def comme exercice soo ko dugalee jox ko dana dala koy defal népp lu mu waree dala koy defal intégralement yow da ngay copier rek coller ko imprimer soo bëggee tey def euh, discours da koy naan man maay sëriñ nangam ci ci ci exemple nga ne ko man maay sëriñ nangam lii laay liggéey damaa bëggoon def tey discours ci occasion euh, par exemple cérémonie officielle euh, bu buy xew Daaru Musti bi nga xamante ne lii mooy lii mooy jubluwaay bi dina la bindal discours boo xam ne li nga ciy changé daanaka discours bi mën nga ko jëlee noonu nga yóbbu ko liiree ko noonu day mel ni yow yaa ko bind. te chat GPT boobu tey laajtewut xaalis laajtewut dara soo xoolee sof bu bu gën a bi nga xamee ne boobu lañ mujju génn mujj génne boobu am na. Euh, partie bi nga xamante ne da ngay fay waaye bi am na bu ñuy wax 3 point 0 bi nga xamante ne ñëpp mën nañ ko utiliser te ngay arab di arab même mbirum xasida yi euh, mbirum xasida yi soo ko ci dugalee nga laaj ko xasida nangam su dee xasida boobu noonu muus na teew ci internet mun na la ci defar résumé mun na la wax xasida boobu nii la lii la lii la lii moo ci nekk ak lii donc loolu tey ay xarala yu bees la yi nga xamante ne am nañu solo trop waaye nag euh, foog ñun ñu xam nuñ koy nuñ koy utiliser ak euh, yan danger la war a mën a am beneen affaire bi bi am ci ci ci ci intelligence artificielle yooyu noonu mooy tey su ma amoon euh, photo kilifa gi Mbàkke tey su ma amoon photom mun naa dugal maanaam ci xarale boobu mun na soppi image am ba wax mu mu toog di wax li nga xamante ne mosu wax te soo soo seetee soo seetaanee vidéo boobu noonu dina la jafe trop pour nga xam ne lii nii du kilifa gi dina la jafe trop. wala mu defar montage photo bi nga xamante ne parce que montage photo yàgg na fi mais ni ko intelligence artificielle di defee photo bi daanaka ku amul xarala bu mun a càmbar ay photo suñ la joxee photo mënoo xamee photo bi xam ne photo bi du nit moo ko defar noo xam ne photo bi du photo bu réel donc xam ngeen ne loolu maanaam lu lu lu lu la c'est-à-dire mun nga tey yeewu nga gis benn vidéo wala benn ojo mu jëlaat sa baat. jëlaat sa jëmm toog di wax li nga xamante ne daanaka mun na nekk ci lu safaanoo ak yow sa gëm-gëm wala yow say en tout cas li nga xamante ne euh, moom noonu ngay waxee donc zaaru xarala yooyu tey euh, ku nekk fii nii mun na ko tester soo demee internet ku nekk mun na mun nga ko tester xool mun nga wax loo nit lu mu waxul tey ci ñun ci sunu ay enquête bëri na trop nit lu mu lay andil image. nee la yaa ngi gis moo ma def leen nii and vidéo bi la lay andil te ci vidéo boobu la ñu gën a basé pour pour def suñu enquête bëri na torop torop nit lu mu ñuy andil audio ne diw moo ma saaga wala diw moo ma wax lii nii wala diw yoral la ma xaalis en tout cas audio bi mooy nekk preuve bi te audio boobu tey suñu demee ba audio boobu maanaam mënatuñ ci munatuñ ci sukkandiku pour def suñu liggéey yéen a ngi jafe-jafe yu muy andi maanaam tey mun nga générer benn audio defar ko mel ni tey baatu nit ki lay jël cent pour cent maanaam nit kese nit képp du mën a xàmmee ne lii du waajee ko wax mënul nekk waa mënul nekk donc tey audio yooyu ñoo ñu koy andil jafe na pour ñun torop ñu mën a xàmmee li ci dëgg ak li ci safaan bi te tey maanaam euh, bépp kilifa muy kilifa diine di di di kilifa ci wàllu nguur war nga xam ne loolu am na pour suba. su su dara xewee ñu andil la yenn façon audio yi euh, ñu andil la ojo ci ci sëriñ bi sàmb ñu ne ñu ne la sëriñ bi sàmb moo la wax lii ak lii wala wax na lii ak lii nii war nga xalaataat deux fois balaa nga balaa ngaa def dara wala balaa nga caméra war nga càmbar loolu càmbar lu boobu fan la jóge ak naka est-ce nit kooku noonu daawoon na wax wax yu mel nii donc loolu loolu tey dina ñëw leneen li li liy ñëwaat mooy capture message capture message yu ñuy jot mooy euh, message WhatsApp lu gën a bëri ak message SMS nit ñëw nee la message SMS bi nii diw de nee na ma nangam wala wax na ma nangam wala diw moom ma ko wax ñu ñu déposer la capture bi euh, loolu pour ma raconter leen ci benn benn anecdote dafa am benn benn xale bu jigéen bu ñu bu ñu bu ñëwoon porter ci plainte moom ak euh, benn xaritam. xaritam bi di nekkoon benn tubaab tubaab français ñu dekkoon fii nii Saly euh, léegi bi ñu ñëwee porte plainte ñu andil ma ay audio andil ma ay capture d'écran andil ma lépp li nga xamante ne war naa mën a euh, jaxase xelu nit pour nga gëm li ñu wax ñu ne ma dafa am benn xale bu jigéen bu bu sàcc seen xaalis bi nga bi nga xamee ne dafa sàcc xaalis bi waaye ci audio yi ñoo ngi doon dégg xale bu jigéen bi naan effectivement man maa sàcc xaalis bi ci audio yi ñoo ngi doon dégg xale bu jigéen bi di naan tubaab bi man maa ko liggéey ba ba mu jëndal ma kër ba mu defal ma lii ba mu defal ma lii alors euh, euh, tubaab bi ñëw ak euh, soxna soosu noonu ñu ñëw porter plainte bi ñu dégloo audio yi ñun tamit boobu xooluñu fu sori dañoo déglu audio yi rek ma ne non lii dafa garaaw ma woo sama ay ndaw ne leen ma yebal leen ne leen kii dem leen dem leen jàppal ma ndaw si ni ngeen andil ma ko waaw dem leen jàppal ma ndaw si ngeen andil ma ko ñu dem jëli ndaw si. beneen jafe-jafe lu muy andi mooy maanaam da lay convaincre tellement que da ngay am problème pour yow mii nga maanaam nga nga càmbaraat ci sa xel xalaat ne lii war naa mën a demee neneen ndaw si bi ñu ko jàppee andi ko euh, bi mu ñëwee ma ne non dossier bi moom dafa leer dañ ko nañ ko te ci ci gri bi en attendant garde à vue en may woo procureur di woo sama kilifa yi pour wax leen waaye xale bu jigéen bi mu bi mu agsee ki ñu demoon jëli. mu ne mu ne sama ndaw yi moom commissaire bi la bëgg gis commissaire bi la bëgg gis ndax ci ci ci ci nu ñu organiser wu am nañu ay officiers yi nga xamante ne ñoom ñooy def liggéey bi ñoom ñooy vraiment ay jàmbaar lañ ñoom ñooy def liggéey bi xanaa problème am man coordination rek laa ciy def mu ne seen <laughs> commissaire bi laa bëgg gis ba ñu ñu mu ñu insister après ñu woo ma ma ne ah fii ku fi ñëw bëgg a gis commissaire bi kay war naa gis commissaire bi nu ñëw bi mu ñëwee mu génnee téléphone am. expliquer ma ne ma kii lu may tuumaal li mosuma ko def kër gi muy wax noonu effectivement moom moo ma ko jëndal man ah, moom moo ma ko jëndal mais kër gi man soxnaam laa woon moo tax mu jëndaloon ma kër gi léegi nag daf maa bàyyi bëgg a takk kii nii léegi dañoo bëgg nangu kër gi ci man li ñuy wax nii man xaw ma mbirum sëriñ lii audio yi xaw ma fu ñu jógee ah, xaw ma fu mais ni mu waxee ma xool ko mu expliqué dina toog foofu noonu di jooy ma ne déet kon dañ cambaraat loolu. waaye ñun tamit euh, nguur gi accompagné nañu ba ñu yor tey ay xarala yi nga xamante ne ci police daanaka ñun rek ñoo ko yor waaye ci ci Afrique de l'Ouest bokk nañ ci ñi nga xamante ne euh, labo suñu laboratoire moo gën a fournie ci Afrique de l'Ouest donc euh, bi ñu dugalee affaire yi effectivement ñu xam ne lii nii ay montage la bi ñu dañ dugal as tuuti rek affaire bi nee ñu la probabilité pour que ça soit des montage est presque de cent pour cent ko ñu àndil ma rapport bi ñu de après nag ñu dem jëli tubaab bi ak ndaw soosu noonu comme tubaab bi nag dañoo commencé waxtaan ak moom ñu gis ne dafa pànk maanaam ci lu mu taxaw da da ci dëgër bopp xam nga enquête soo koy def da ngay xool ku ci gën a faible kooku ngay togg soxlawut dóor soxlawut saaga ñu dem jëli ndaw si ki mu àndaloon ñu yóbbu ko ci côté am na ñu waxtaanee ak moom. après nag moom moo ñu expliqué ne lii montage la waa ji moo ko monté expliqué lépp wax ñu ni ñu teggee dil bi suba ba ngoon nan lañ nan lañ defaree affaire nan lañ defaree voie bi ma ne ko ah ma ne lii maa ngi ko doon dégg waaye mosuma xalaat ne am Sénégal ku ko def ñu dem jëli tubaab bi ñu ne ko de toute façon ndaw si avoué avoué na soit dag ñuy wax lan moo xew walla ñu ñu xool euh, nu ñuy jëflante ak yow de toute façon dossier bu leerut. ñëpp xam nañ ne su àggee tribunal day dem instruction te instruction mooy da def 6 mois balaa balaa dossier bi di leer ñu expliqué ko après nag mu dem génne ordinateur nee ñu andi leen sama ordinateur mu andi ordinateur bi taal won ñu won ñu won ñu ah boobu lañ bàyyi beneen ndaw si donc yaa ngi gis maanaam ndaw si su insisté wul woon gisee euh, gisee man daanaka tey suñ ko tey suñ ko defee woon tribunal mënu fa wax li nga xamante ne dina convaincre beneen nit mënu fa def luy convaincre nit maanaam naroon na tëdd ci erreur. te loolu li muy amee ci wàllum yoon noonu la mën a amee suñu diggante yi te loolu tey intelligence artificielle moo koy waral soo xoolee tey ojo yi ak message yi groupe whatsapp yi soo xoolee lu muy tas ci ay nit loolu kenn mënul kenn mënul xam ñaata la parce que ñun loolu mooy suñu liggéey maanaam lu muy andi ci ci ay ay ay ay ñàkk déggoo ay woroo maanaam ay ay détails yi nga xamante ne te pourtant lu ñu mënoon éviter la nga jël de la même lu dépassé mbirum intelligence artificielle même ci ay audio yu dëggu ma wóolu sama xarit bi envoyé ko ko kooku jël moom man moom laa doon waxal moom laa ci sutura mu jël envoyé ko yeneen nit ba loolu euh, daanaka audio yooyu daanu ji ci fi nga xamee ne man bëgguma woon ñu dem foofu noonu te intelligence artificielle dafa dafay faciliter loolu donc ci loolu li may li may gën a tëjee ci ci ponk boobu noonu mooy kilifa bu nekk war na xam ne loolu am na ah am na suñ la nee. nit dafa wax li nga xamee ne ñu tegal la audio li nga xamee ne yow xam nga nit ki ci jamono bu gudd ñu wax ñu mu wax li nga xamee ne wax dëgg yàlla loolu jaaxal na la bul tëb tëb rek jël sa décision na nga jël d'abord temps càmbar xam lan moo xew ndax tey xarala yu bees yi maye nañu pour nga soo bëggee yàq diggante ñaar nit nga nga def montage yooyu noonu donc. donc xarala yu bees yooyu noonu tey maanaam ci lu gën a yaatu euh, ay jumtukaay la yi nga xamante ne euh, dinañu mun a dinañu mën la mën a defal lépp luy xàmmee reconnaître maanaam ay jumtukaay yi nga xamante ne mën nañu xàmmee mooy xàmmee nit déjà ci ay photo euh, xàmmee nit ci ay vidéo maanaam tey man mën nañ ma jox vidéo ma xool vidéo bi bañ a xàmmee nit ki mais vidéo bi soo ko joxee intelligence artificielle tant que nit kii ni mus na teew ci benn base zone da naan diw mu ngi tudd Serigne Nangam wala diw mu ngi tudd Nangam. donc loolu loolu aussi euh, tey soo xoolee exemple bi ma ci mën a joxe mooy bi ma bi ma sama première mission bi ma demee États-Unis Washington dañoo wàcc aéroport ba ren pour euh, enrôlement yi mais man bi ma agsee ci ci waaj bi ma ko joxee sama passeport tout de suite dama gis benn écran bu nekk ci ginnaaw di presque sama interview yi ma mës a feeñ télé Sénégal fii nii yi nga xam ne ñoo ngi ci internet bi ma gis leen ñuy déroulé ah, ma gis leen mu ngi déroulé ci saa si xam na ne kii FBI moo ko après mun ma hey my friend you can move you can move tamponné tout de suite kii bi maanaam kon ma ne kon ñii balaa ngaa ñëw maanaam am na ñu ay xaral yi nga xamante ne dañuy euh, dañuy synthétiser xam kam la ñu amal affaire tey kuy déposé ji euh, visa lu mel ni ambassade États-Unis gisee na dañ lay laaj sa numéro téléphone gisee na dañ lay laaj sa adresse email te pourtant envoyé wuñ la visa bi ci adresse email dañ lay laaj su dee yor nga page Facebook sa page Facebook dañ lay laaj sa page en réalité loolu dañ koy dugal ci benn algorithme bi nga xamante ne intelligence artificielle la boobu day dem ci internet bi yëpp ramasser xool kii kii ñu amal affaire nii kan la dëggantaan ah, kan la kii lan mooy ngëm-ngëmam lan mooy yëngu-yëngoom lan mooy jikkoom moo tax am na ñu ñuy bañal visa am na ñu ñuy bañal visa ñu foog ne te te ay borom yi teraanga mais c'est parce que dañoo mus a def dara ci internet bi li nga xamee ne. soo xasee ba def loolu noonu américains yi ñoom dañ lay fiché doo doo mës a dugg seen réew soo jaaroon Nicaragua dugg fu tam dañu lay yebalaat ci avion andiwaat loolu loolu am na tey maanaam gis nañ ko gisaat ko am na beneen bi nga xamante ne dañuy naan détecté détecté mooy comme li ma leen wax euh, ci comportement maanaam ci réseaux sociaux yi ci am na affaire yoo fay def am na affaire yoo fay wax day am ay algorithme yu détecté ne diw mii tey soo toogoon lu mel ni bon baal ma am na yi nga xamante ne soo ci duggee même nit kii su la surveillé wul am na ay algorithme yu lay surveillé dañ lay signaler directement nit ki nii topp leen mbiram mun a nekk nit ku dangereux tey plateforme yooyu noonu am na presque police àddina bi yëpp dañ koy utiliser. am na li nga xamee ne prédire prédire mooy xaw ma nu ma ko mën a waxee tënkee ci wolof mooy maanaam euh, waajal li nga xamante ne accès gut Ah, waajal lu accès gul maanaam mu leer la ne lii nii accès gul waaye dina dina xew ci ci ay données maanaam tey algo intelligence artificielle yi mun nañu la ne par exemple soo leen joxe données yu bëri ci à partir de yooyu noonu nga leen jox mun nañ la wax lii nii mun na xew wala lii nii dina xew jamono jii ne euh, soo xoolee tey ci ci ci luñ koy gën a appliqué ci Sénégal fii nii mooy ñuy jouer pari foot one xbet ñuy jouer pari foot dañ leen euh, algorithme yooyu dañuy génnee ne la. normalement équipe bii nii su joué ak équipe bi nii équipe bii nii mooy gagné normalement te en grande partie dañuy jàpp en grande partie loolu la ñuy kii nii ñenn ñi di naan code yi ak coupons yi ñuy jaay ci internet bi donc tey aussi euh, intelligence artificielle am na leneen li nga xamante ne bokk na ci lu gën a tiital nit ñi mooy capacité de créer maanaam mun a sos lu bees waaw ah, mun a sos lu bees tey soo ko joxee ne ko dessiner ma. benn juma bi nga xamee ne da ngay gis benn xiis bu bu taxaw foofu noonu nangam sangam nga décriral ko da koy dessiner mel ni photo da la koy dessiner mel ni photo appli euh, application boobu noonu euh, ñi fi nekk comme étudiants yi mun nañ ko tester mu ngi tudd Dali Dali soo duggee chat GPT payant bi Dali la tudd loo ko laaj ci kii ni mun na la créer ah mun na la créer donc tey loolu dinañu ñëwaat ci création boobu noonu lu tax nit ñi xaw ci am xaw ci am tiitaange. te lu tax aussi nitu diine yi war a surveiller loolu noonu technologie boobu noonu euh, toujours ci ci mbirum intelligence artificielle euh, maanaam ci lu ñu koy utiliser maanaam fépp ah ci domaine du maanaam lépp li nga xamante ne nit dina ci yëngu tey intelligence artificielle mun na la fa remplacer presque soo xoolee lu am na lu ñuy wax smart city smart city soo demee ay ay dëkk yu mel ni Chine mooy dëkk bu ñu demoon Shenzhen doo doo gis alkaati mu nekk ci biti doo gis alkaati ci biti mais 20 boo dem am na caméra 20 boo dem am na caméra su la neexoon sa saak nga bàyyi ko fii nii doo foofu nga koy fekkaat parce que tout simplement soo jëlee saak bi waaw soo jëlee saak boobu noonu dem euh, affaire bi day signaler directement ne saak bi diw moo ko fi jëlee maanaam dañ dañ dañ lay reconnaître te sooy dugg sooy jënd puce foofu noonu sooy jënd puce da ngay toog ñu enrôler comme kuy defar carte d'identité dañuy jël sa baaraam yi jël sa kanam jël sa sa say këyit maanaam foo dem ci dëkk bi xam nañ ne yaa ngi fi nekk foo mënta dem ci biir dëkk bi loolu la ñuy wax smart city ci wàllum sécurité mais aussi ci wàllum énergie renouvelable maanaam tey ay panneaux solaires yi nga xamante ne dañuy gën a euh, maanaam mun nañ topp naaj bi te yooyu par exemple soo ko installé fii nii ñoom ñooy gën a baax que panneau solaire bi nga xamante dañ kaa fixé kese ana panneau solaire yi nga xamante ne soo ko fixé naaj bi plus dem tout le temps naaj bi fu mu bougé rek da koy topp waaw da ci wàllum santé ci wàllum euh, médecine foofu nag bokk na ci fu mu gën a am impact wàllum intelligence artificielle ndax tey intelligence artificielle ci wàllum analyse anal euh, interpréter ay analyse wala ci ay rajo soo defee rajo ba pare li mu mën a gis nit mënu ko gis maanaam mën na gis li nga xamante ne ci image bëtu nit mënu ko gis te mu mu mu détecter feebar bi avant que nit di ko mën a détecter donc tey. médecine à travers le monde ñoo ngi koy ñoo ngi koy tey am na ay mbirum opère yi nga xamante ne du nit ki ci ci ci réew yu yu am doole yi du nit ki mooy toog opéré la waaye dafay am machine bu ñëw tiim la opéré kii nii fekk programme nañ lépp ci wàllum éducation waa ci wàllum éducation ci wàllum éducation tey nit presque lu mu xamul yow yaa soxlawul mais tey nit ku sawar. mën nga am xam-xam ci domaine bu ne maanaam ci domaine bi nga xamante ne musoo musoo koo musoo ko jàng boobu aussi dafa leen di raconter benn exemple dafa am benn benn xale bu ma cité turam fi nii benn xale bu ñu jàppoon euh, en 2017 en 2017 police da kaa jàppoon ndax dafa duggoon ci système police bi bloqué ko ci distance mu dugg ci système police bi bloqué ko. Euh, boobu jamono ku fa nekkoon jàpp ko defeere ko mu génnaat am benn entreprise bu ko jël benn entreprise bi nga xamee ne mbirum ay jaay ticket mooy liggéeyam booy bi moom moo defar li maanaam ci système bi système bu gën a bëri moom moo defar sécurité bi defar lépp bi mu demee ba am problème ak euh, boroomu entreprise bi dafa dem toog këram bloqué lépp li nga xamante ne dañ koy utiliser pour entreprise boobu liggéey. entreprise bi kenn mënu kenn mënatul liggéey ndax jumtukaay boobu la ñuy utiliser pour liggéey mu dem toog këram bloqué ko bi ñu demee jàppi ko te ni ñu ko jàppee maanaam dañ cee organiser pexe bu doy waar pour mun ko jàpp bi ñu demee jàpp ko mu ñëw toog ñuy waxtaan musul jaar école musul dem école xamul école française du école française du mbiram mais li bi ñu toogee di waxtaan mu ñoo ngi waxtaan ci affaire yoo xam ne. man presque dem naa ci àddina fu ne pour pour pour mën a xam loolu te moom Sénégal fii rek la toog xam ko ah, Sénégal fii rek la toog xam ko maanaam loolu la ñuy wax ay hacking ñu gën a aay ci wàllum hacking ci àdduna bi mooy ñi nga xamante ne jànguñu ko mooy ñi nga xamante ne dañ dañoo am bëgg-bëgg bi ak yëg-yëg bi ci domaine boobu noonu ñu dem ci internet bi wër ba am xam-xam bi donc loolu tey possibilité boobu am na te intelligence artificielle da kaa gën a yombal da gën a yombal. tey maanaam lu ñuy wax euh, programme informatique code informatique parce que machine machine lépp lu mu def rek dañ ko kaa wax loolu la ñuy wax programmation informaticien yi lépp lu lu appareil def rek nit moo ko wax léegi ci langue boobu ñu koy wax ci langue bi anglais la xaw a nuroo waaye nag du anglais dafa am lu ñuy wax les langages de programmation tey man su ma bëggee li gënoon jafe mooy nga xam machine bi nan nga koy waxee defal ma lii defal ma li defal ma lee looloo gënoon jafe tey soo duggee ci chat GPT bi ma leen wax nga dugal nga ne damaa bëgg la damaa bëgg nga nga expliquer ma nan la ñuy waxee machine bi pour mu defal ma lii lii ak lii dalay jox code bi directement code bi nga copier coller ci machine bi donc tey ci wàllum xam-xam toll nañ fi nga xamante ne ku bëgg xam-xam di nga ko am ku bëgg xam-xam di ko am maanaam loolu tey euh, am na nag ñi lay naan noo nitu daara laa yooyu kiw ma ko nitu daara moo ci war a gën a mën a intéressé wu. nitu daara moo ci war a mën a gën a intéressé parce que nitu daara sa xam-xam dafa yaatu dafa war a yaatu ba foo mënte toog suñu contesté li ngay wax nga mën ko àndil andil dalil te loolu noonu lu ko li la ko mën a may mooy nga nga gis gëstu tey maanaam je pense que xasida yépp tey soo demee internet am na ñu la ko jàngal am na ñu la ko explique am na ñu la ko traduire xasida yooyu noonu am na ñu ko la ko mën a traduire nee na li lañ ci wax li lañ ci wax li lañ ci jublu loolu tey ci wàllum jàng intelligence artificielle am na ci solo torop euh, beneen affaire mooy ci wàllum télécommunication téléphone est-ce que nit ñi xalaat nañ tuuti téléphone nu muy fonctionner téléphone ah téléphone téléphone ñoo ngi lay woo di la jot mais est-ce que nit ñi càmbar nañu téléphone bi moom nan lañu def ba di ma jot est-ce que nit ñi càmbar nañ loolu maanaam téléphone bii nii mooy sànq li ma leen wax organe de sens nit maanaam mooy dégg. Euh, kii ni mooy euh, kii ni odeur gis euh, goût ak kii ni toucher mais ñun cinq lañ ci am téléphone bii nii au moins am na ci dix-neuf téléphone au moins am na ci dix-neuf te daanaka ñi jënd les téléphones de dernière génération téléphone yu kawe yi presque li nga ko jëndee da ngaa jënd noonu pour pour wane ne yor nga téléphone boobu rek mais li nga ciy soxla bëriwul ndax dafa am ñuy liggéeyee téléphone am ñi man xamante ne dañuy utiliser téléphone simplement ku utiliser téléphone simplement am na ñi nga xamante ne soxlawu ko donc intelligence artificielle foofu la gën foofu la ëppee doole euh, du ma ñëwaat trop ci wàllum réseau bi mooy téléphone bii ni chaque quelques millisecondes day signaler antenne bi antenne day am antenne bu leen couvrir pour mu ne antenne bi bu ma fàtte de maa ngi fii nii foo mënte dem antenne yi maanaam antenne bu nekk dafa am fu mu couvrir soo génnee foofu am beneen antenne bu la jël loolu la ñuy wax les antennes relais te soo xoolee moom lañ samp ci dëkk bu ñu boo gis ñu samp ko am mu am euh, ñetti antennes yi autour antenne bu nekk day day day jël benn angle bu 120 degré soo ko réunir muy 360 degré maanaam mooy cercle bi donc loolu noonu euh, moo nekkoon suñu formation de base ci wàllum oto tey euh, par exemple États-Unis Californie am na ay taxi yi nga xamante ne da ngay kii ni dugg mu dawal boppam amul chauffeur amul nit ay taxi loolu lañu wax les véhicules autonomes tey aussi euh, dëkk yu mel ni Dubaay ñoo ngi koy testé taxi yi oto yi nga xamante ne da ngay dugg toog moom mooy dawal boppam moom mooy euh, gis panneau xam ne fii nii war naa wàññi wu mu wàññi moom moo moom mooy accéléré moom mooy def lépp waaw moom mooy def lépp tey même su dul su accès foofu am na ay oto yi nga xamante ne soo leen dawalee nara a dépassé yenn vitesse yi da gis ne dañuy wàññi régime oto bi mooy oto yu bees yëpp am na nañu option yooyu loolu la ñuy option de sécurité yi yu bees yëpp am nañu maanaam oto yu yu yu haut de yi donc ci wàllum euh, banque finance mais damay euh, jeexale toujours ci utilisation bi ndax niñ ñu koy euh, wàllum intelligence artificielle yaatu na yaatuwaay boo xam ne maanaam domaine bu nekk ki fay yëngu moo la mën a wax nu mu nekk di koy utiliser tellement dafa yaatu mais ci Sénégal fii ni ñoo ngi wax mbirum pétrole pétrole ak gaz pétrole ak gaz soo xoolee machine yuy manque pétrole bi ci suuf du nit moo leen di contrôler directement dafa am lu ñuy wax ay automate programmable industriel API maanaam yooyu ñooy contrôler machine yi yooyu ñooy xelu machine bi te yooyu intelligence artificielle moom moo leen di moom moo leen di dawal intelligence artificielle moom moo leen di permettre ñu xam lan la ñu war a def ah, lan la ñu war a def te tey suñu demee ba suñu réew mi maanaam nekk pays bi nga xamante ne day manque pétrole ak di ak gaz dinañ soxla ñu am xam-xam ci ci wàllu woowu noonu tey école yu mel ni école polytechnique bu dakaar bu cees ak yenn écoles yi dañuy former ay ndaw ay ingénieur ci domaine boobu noonu te li ñuy wax ni am na ñuy foog ne bon lii de est-ce que Sénégal agsi na ci ba ñu ñu intéressé soo xoolee tey euh, école yu mel ni école bi ma jógee polytechnique ñun suñu année euh, presque suñu promotion bi yëpp euh, benn entreprise France bu tudd Atos moo ñëw recruter ñëpp ci biir classe bi ñëw recruter ñëpp ñooñu tey ñu ci gën a bëri nekkuñu biir réew mi ñoo ngi France. waaye ñoo ngi France di liggéey te ci domaine yooyu noonu la ñu liggéey te fii lañ leen formé Sénégal fii donc am nañ capacité de formation yi maintenant utilisation bi daanaka loolu moo des ci wàllu mbay a wàllu mbay xam ngeen ne tey mun nga defar sa tool waa sa tool de sorte que su la neexee benn yoon nga fay dem semaine bi wala su la neexee doo fa dem ndax day am lu lu maanaam système d'arrosage automatique bi nga xamante ne day arroser tool bi tool bi su tooyee day xam ne tool bi tooy na su tool bi dépassé yenn kii ndox mi day coupé day coupé kii bi mooy robinet yi ba nga xam ne ndox du ëpp ci ci kii bi nga yor say say caméra de surveillance yi nga xamante ne di nga gis lépp lu xew ci tool bi te ñooñu ñëpp dañuy utiliser lu ñuy wax ay algorithme intelligence artificielle intelligence artificielle moo nekk ci ginnaaw man mën yooyu noonu <coughs> donc ci ci ci ci lu ñuy wax nii yëpp police na lay utiliser intelligence artificielle ndax léegi-léegi wax naa leen intelligence artificielle yaatu na yaatu boo xam ne eh, yaatuwaay boo xam ne eh, ku nekk ci domaine bi moo la mën a expliquer nu mu nekk di ko utiliser war mu nekk di ko utiliser ñun nag ah, dafa am nu ñu nu mu ñu yombalalee suñu liggéey déjà en premier géolocalisation la géolocalisation tey maanaam képp ku ñuy wër ku yor appareil téléphone wala yeneen type appareil eh, ñun la ñuy envoyer réquisition bi comme ça soit ñu liggéey ak Sonatel mais aussi am nañu yeneen jumtukaay yi nga xamante ne ñoo ñu permettre ñu identifier nit ki ndax tey Sonatel soo xoolee dañ lay neen rek mu ngi ci biir jumaa ji fii nii cest à dañ jox benn rayon ñu ne la mu ngi ci biir ci biir jumaa ji waaye kan la exactement ah, kan moo yor téléphone bi exactement loolu dafa am yeneen façon jumtukaay yi nga xamante ne dañ koy sol nii mel ni sax ado soo tase woon ak ki ko yor fii nii doo ko mës a xam ah doo ko mës a xam même su dee xam nga nag wàllum wàllum xarala yooyu noonu. ñëw boot saag bi romb la di dox téye téléphone am ah téye téléphone su ñëwee ba ci téléphone bi da ngay gis bip bi di kii nii pii pii pii moom moom moo koy dégg yow doo ko dégg waaw ah, moom day ñëw ba ci yow def ni xam xam ne yow yaa yor téléphone bi téléphone fi mu tëdd day ñëw ba foofu noonu donc loolu intelligence artificielle moo ko moo ko moo algorithme yooyu noonu ñoo ñoo la ci mën a dimbali maanaam intelligence artificielle proportion yi mu jël moo am doole tellement. que nit ñi maanaam xaw ci tiit mais du lu du lu bees waaw du lu bees am na lu ñuy wax gardiennage virtuelle ah gardiennage virtuel gardiennage virtuel genre géolocalisation la li nga xamee ne ci carte ci benn carte da ngay tracé par exemple ñoo ngi wër sama xarit bi di Lamp Fall ñu koy wë ñu koy wër te bon mu ngi Touba mais tayal nañu ñëw jël si jóge dan Ndakaaru ba Touba pour jël si ko. donc loolu lu ñuy def dañuy def benn gardiennage virtuel gardiennage virtuel mooy ci carte bi da ngay par exemple su dépassé jam ñaajo rek yow signalé ma ne waa ji dugg na Dakar da ngay tracé benn cercle cercle boobu nit ki su ci su ciy dugg ngay jot alerte maa ngay jot alerte bu lay wax ne nit ki dugg si na waa nit ki dugg si na te peu importe fan la duggee ci biir cercle bi su dugg see rek dañuy xam ne dugg si na su génnee aussi cercle bi xam ne génn na waaw su aussi cercle dañuy xam génn donc loolu ay xarala yu bees la yi xamante ne daf ñu yombalal suñu liggéey yenn saay nit ki nga woo ko nee ko ñëwal mu ne la ñëw ma nga ne ko ok amul problème ngay bàyyi noonu mu sedd nga xaar place surveillance bi di ko xaar waaw di ko xaar am lu ñuy wax analyse vidéo et surveillance intelligente tey soo xoolee ndakaaru fépp am na presque ay caméra de surveillance ci mbedd yu mag yi maillage bi des na waaye nag mbedd yu mag yëpp am nañ caméra de caméra de surveillance yooyu noonu oto boo fa rombal xam nañ ne oto bi romboon na fi à telle moo tax tey suñu sàccee sa oto nga saisir nga saisir police tant que oto bi romb na ci caméra yooyu noonu dañuy xam ban heure la fa romb kan kañ la fa romb parce que kii bi am na données yi fu ñu leen di stocké fu ñu leen di stocké kii bi am na capacité de lecture de plaque maanaam su su su oto bi rombee plaque bi du yem rek ci jël image bi parce que image jël image rek bëriwul njëriñ am na njëriñ mais bëriwul parce que mënoo teg nit. Euh, journée bi yëpp mu toog di seetaan télé di sotaan ay oto yu romb wala ay nit yu romb nit soo ko placé foofu 15 minutes après day sonn day xalam day commencé nekk ci leneen mais ay algorithme intelligence artificielle moom ngay jox image nit ki ne ko par exemple kii soo ko gisee après nga signalé ma ko foo romb caméra yooyu noonu ci biir dëkk bi dinañ la ne par exemple sëriñ bi ni ñëw na atel a ñëw na atel endroit muy loolu wala ay oto am na ci yoo xam ne dañuy détecter coup de feu maanaam soo jëloon arme tiré ci côté boobu noonu bruit bi muy def ñoom dañuy xam ne li bruit arm rek la la mën a def donc day signal directement à la police que effectivement lii bruit coup de feu la dem leen dem leen seet lan la même ci ay agression yu bëri yi nga xamante ne ay nit la ñuy rey euh, soo xoolee da ngay dégg deux trois jours après wala une semaine après nga dégg police jàpp na leen parce que euh, tey dëkk bi maanaam dafa am ay surveillance bi nga xamante ne intelligence artificielle moom mooy doxal li nekk ci ginnaaw waaw moom mooy doxal lu nekk ci ginnaaw nga yor sa moto di daw ah di daw da ngay romb romb romb rombaat soo dindee masque bi de euh, maanaam kagul bi nga soloon dañuy xam ne kii moo fi romb ah kii moo fi romb donc yooyu ay jumtukaay yu am solo la tey ci suñu liggéey daanaka mëntuñ def suñu liggéey efficacement sans jumtukaay yooyu noonu beneen bi mooy euh, comme li ma reconnaissance euh, faciale am na aussi analyse des médias sociaux boobu nag dama ci xaw a jël sama temps tuuti. analyse des médias sociaux analyse des réseaux so des des réseaux sociaux maanaam comme li ma leen wax mënoo jël ay ndaw ñuy ñu ñu topp ay page Facebook toute la journée xool page bii xool page bu kii alors que Sénégal am na ay millions de pages li ñu def mooy am na ay intelligence artificielle dangay dugal mot clé da ngay dugal par exemple kan moo waxtaanee mbirum daaru mufti kan moo waxtaanee mbirum daaru mufti ñëpp ñi nga xamante ne ci internet bi ci réseaux sociaux yi waxtaanee nañu terme boobu noonu dala koy remonter. ne la diw profil diw wax na lii ci Daaru Muxti profil diw wax na lii ci Daaru Muxti mun nga dem ba ba laaj ko est-ce que li ñu wax ci li ñu wax ci Daaru Muxti lu baax la walla lu safaan la moom dina la envoyé ne la par exemple 60 pour cent yii ñoo wax lu baax commentaire yu positif ñii nii ay commentaire yu négatif lañu lañu la ñu wax donc loolu tey am na surveillance réseaux sociaux yooyu noonu tey am na te lu am solo la beneen affaire bi ñu ciy attirer seen attention mooy li ma leen wax surveillance boobu noonu police Sénégal kese nekku ci police àdduna bi yëpp parce que internet maanaam ñëpp dañ cee nekk amul frontière euh, toujours li ma leen doon wax am na ay commentaire euh, am na benn benn xale mooy guerru Israël euh, ak Palestine bi nii bi mu commencé am na li mu wax ci internet bi ci wàllum Israël yàlla dee kërti kërti wax maanaam wax foofu mbirum yu xaw a doy waar da kaa wax. balaa presque ñu kii ni waa kii nii waa ISRA signalé nañ ñu ne kii càmbar leen ay mbiram parce que li muy wax nii dafay menacer sunu dafay menacer sunu sécurité te moom xam naa ne dafa tëju ci néegam ne rek xam naa xaaral ma commenté te amoon na beneen dossier bi nga xamante ne ñëpp déggoon nañ mbirum dossier boobu noonu ku defoon commentaire juste ci ambassade euh, mbirum Amérique nit ñi dem jëli ko donc looy wax ci internet bi war nga ko xoolaat war nga xam lan war nga en tout cas xool ñaari yoon balaa ngaa. publier yenn affaires yi am na ñu nekk ci internet bi par exemple di saaga ay kilifa diine foog ne kenn xamul fu ñu nekk dét munoo wax lu mel noonu te nit ñi duñ la topp munoo wax lu mel noonu te nit ñi duñ la donc service cyber cyber patrouille bi ma la doon wax sànq service boobu loolu rek mooy liggéeyam ñoom suñu xëyee ci loolu la ñuy nekk ba ngoon demee le matin tôt dañuy ñëw ne ma commissaire ci li ñu wax lii ak lii ak lii en tout cas moo attiré suñu attention. donc internet bul foog ne fi ngay toog la di wax di di def lu la neex te dara du la fekk donc euh, loolu tey lu ñu ko yombalal mooy intelligence artificielle yooyu noonu ñu intelligence artificielle boobu moom mooy collecter données yi xool ba pare mun a organiser données yi am na am na beneen euh, beneen fànn mooy détection de la fraude et de la cybercriminalité euh, mooy ñiy naxaate ci internet bi <clears throat> ñi ñu leen mën a jox mooy am na. benn dossier su ngeen demee ci internet di ngeen di ngeen ko gis bi nga xamee ne ñoo ñu ay naxekat lañu pour mën a jot ci sa alal dañu dañ lay wax da ngay investir tey dix mille suba nga am te da ngay parrainé soo pare parrainé nit maanaam soo àndee nit mu mu teg euh, trente mille yow yaa moom par exemple cinq mille yi yaa ngi gis donc loolu euh, ñu nax ci ay sénégalais ba ñu mot mille neuf cent onze maanaam benn junni ak euh, ñaari junni yu manqué euh, quelques quelque personnes alors euh, bi affaire bi accès ba xaalis bi accès ñoom fu ñu ko soxla dañuy couper plateforme bi parce que yow amoo benn contact ak ñoom yow internet rek lañ la waxee ne soo soo kiiwee di nga gañe maanaam suul zaaru suul bukki la suuli bukki bukki bu ñu mujj suul nag moom mooy faatu ndax <laughs> ku ñu mujj ñi ñu mujj jël seen xaalis ñooñ dañuy per waaw da gis. bu ci xër maanaam dugaloon cinq mille am dix mille ne ah lii neex na xaama jëm jëli cinquante mille yi dugal dugal cinquante mille ñu ne la am nga cent mille gannawaat suba mu dem jëli parce que même retrait xaalis bi dañ koy dañ koy conditionné ci yow ngay jël xaalis di dugal soo xasee ba dugg ci loolu loolu ba xaalis bi mat Sénégal fii nii xaalis bi demoon na bu mat quatre milliards yu teg pas ay millions quatre milliards yu teg ci lu ay sénégalais dugal foofu noonu ñii ay médecins lañ ñii ay. pour wax leen ne maanaam mbir mi du ku jàng wala ku jàngut mais mbir mi ku xam àdduna fu mu toll ak ki ko xamul la te jàng école français taxul nga gën a xam li xew ci àdduna bi attention loolu maanaam différence bi ñu bi ñu war a def la donc ñooñu et puis suñu suñuy ñëw ci réew dañuy jël ñu mel ni sama xarit bi bëgg xaalis ñu ne leen yeneen njiit bi yeneen yeneen DG entreprise recruté nañ leen ñu jël fii nii ay cinq xale ñi nga xamante ne ay sénégalais ñii ay médecin lañ kenn ki homme d'affaires la euh, ñenn ñi doon taaba taaba ñu ne leen léegi yenn yenn DG entreprise bi ñu créé entreprise bi alors ñoo ñoo doon dem ci nit ñi di leen di convaincre pour ñu dugg léegi nag du jour au lendemain benn ñoom benn contact la ñu amoon mooy groupe WhatsApp ak plateforme bi internet bi ak groupe WhatsApp la ñu amoon groupe WhatsApp bi lañ doon waxtaanee seen ay affaire ci internet bi lañ doon defee investissement yi du jour au lendemain bi mu accès 4 milliards ñu tëj plateforme bi. ah ñu tëj plateforme bi léegi mille et quelques personnes yooyu yëpp dajaloo ñëw service ñii perte ay cinq millions ñii perte ay sept millions ñii perte ay cent mille kii perte deux cent mille ñu ñëw mbooloo mbooloo bu yaatu maa ah, mbooloo bu yaatu ñu ñëw ne ma commissaire ñun dañ ñoo nax waaye nag ñun suñu xaalis ñii di lay naan xaalis bi dama kaa leb ñii di lay naan xaalis bi dama kaa kii te loolu affaire bu doy waar la parce que xaalis boo moomul soo ko dugalee ci plateforme. am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo jëli woon seen ay nit dugal leen parce que dañ leen dañuy am commission ñooñu ñuy dugaloon ñooñu porté leen plainte plainte yi tegloo foofu noonu après nag ma woo ñi may liggéeyandoon sama ndaw yi ne leen ah léegi lii nii nan lañ nan lañ koy réglé ñu waxtaan ba juboo ci nañu jël ñaar ci ndaw yooyu noonu pour ñu représenter ñu ci des lépp ndax pour ñu représenter ñu ci des ñooñu ñëw expliquer ñu bi ñu defee suñu ay enquête te loolu. su état bi deful woon ay investissement yu dëgër pour ñu mën am ay xarala yu am doole duñ leen mës a ñu retrouver juróomi sénégalais yi ñu jàpp leen waaye bi ñu leen jàppee ñu xam ne ñii tamit ñoom ñoo def waaye ay victimes lañ rek maanaam ñoom tam dañ leen nax rek alors euh, ñoom mosuñoo gisee ak sénégalais yi mosuñoo gisee ak sénégalais yi ñu wër wër nekk di kii ni benn nit moo nekkoon ci seen intervalle. mooy benn benn dame de ménage benn bon benn jànq buy liggéey ci ci kër chinois yi moom moo doon traduiral chinois yi pour ñu kii nii euh, moom moo nekkoon interprète bi ndaw soosu bi ñu amee pistam camerounaise la ñu topp ko topp ko ba jàpp ko ndaw si euh, wax ñu ne moom tamit xamoon na chinois fi ñu dëkkoon mais chinois yi chaque fois dañuy changer dëkkuwaay dëkkatuñu moom fi mu doon ménage ñu utiliser ñu tamit mooy ñoom la ñuy utiliser ñu utiliser loolu mooy sunu xarala yi ñu utiliser loolu ba mun a récupérer ñoom seen données yi ba ñu mun a récupérer ñoom seen données yi te ñoom mënuñu xam ne récupérer nañ seen données yi ndeete ñoo ngi préparé wu pour génn réew mi mais pare guñu ñu dem fekk leen almadi ci benn kër ñu euh, ñoom tamit ils étaient cinq juróomi chinois ñu dem fekk leen almadi ci benn kër lu ñu leen fekk ci ay téléphone euh, kenn mënul xam ñaata téléphone la téléphone yu bëri ay puces puces yi nga xamante ne euh, ñoom lañ doon utiliser pour maanaam nax nit ñeeg yooyu noonu euh, bi ñu leen jàppee ñu defeere leen maanaam cinq chinois ak cinq sénégalais malheureusement sénégalais yi ay victimes lañu mais aussi ay mise en cause lañ ci affaire bi ndax euh, dugg ci loo xamul lu la ci fekk après malheureusement foog nga endossé ko. donc noonu lañu def ba jàpp ba jàpp chinois yi maa ngi fàttaliku chinois ñoo ngi doon laaj yéen nu ngeen def ba ba ba xam li partout Sénégal kese la ñu koy def dañ koy def Côte d'Ivoire dañ koy def kii ni euh, pays sous région bi yëpp dañ koy dañ koy def donc suñ nee sëñ bi kaay investir fii nii tey nga dugal cent mille gën suba nga am euh, deux cent mille war nga xam ne xaalis yombee wut noonu quand même xaalis du du du du mën a du mën a yombee noonu te loolu malheureusement ba léegi nii bi jàppee chinois yooyu. am na ñeneen ñu commencé ñu ñu reprendre liggéey boobu noonu depuis quelques mois ñoo ngi jotaat ay plainte ci ci domaine boobu donc loolu yëpp dafa laajte maanaam ñu yee nit ñi ci ci mbirum àdduna ak mbirum technologie muy fonctionner euh, toujours ci ci ci ci mbirum intelligence artificielle ñu ñu aborder tuuti ci wàllum danger ndax intelligence artificielle tey bokk na ci lu ñu gën a waxtaane ci àdduna bi d'abord dafa xaw a tiital ñenn ñi ndax la. ndax lu mu lu mu xaw nu lu muy jël di nuróolee euh, li yàlla defar nit nit di ko defar maanaam nit di defar li nga xamante ne day xaw a nuróog li yàlla defar pas ci ay image mais ci ay jëf ci ak ci ay jikko maanaam ay intelligence li nga xamante ne dafay muus am en tout cas li nga xamante ne day nuróog lu muus te loolu dafa xaw a tiital nit ñi euh, li ma leen wax mooy fausse vidéo yi ak fausse audio yi bokk na ci actuellement lu ñu koy gën a utiliser tey maanaam euh, yàqante der euh, ci plainte yu ñu jot benn partie bi yëpp ay mbirum yàqante der la diffamation ak mbirum euh, sosalante ak yooyu noonu maanaam moom la ñu def diffamation ak ay mbirum injure léegi yooyu noonu tey am na ay ndaw yuy utiliser deepfake yooyu noonu pour mën a defar ay vidéo nit ki di nuroo ak nit ki te fekk du moom beneen affaire ci toujours ci ci ci domaine yooyu noonu ndax ci domaine yooyu jigéen ñi malheureusement jigéen ñi ñooñu ci gën a ay <laughs> jigéen su ñëwee service loolu laa leen di wax ñu góor ñi la mais jigéen ñooñu ci gën a tey soo xoolee même ci wàllum euh, maanaam topp sa jëkkër ba jot ay message am presque jigéen jigéen ñoo koy ñoo koy gën a def ndax ñoom ñoo gën a jigéen yàlla may dakaa may xel xel bu yaatu am na sunu benn jàngalekat bu ñu doon wax ne fi ngay xamee ne jigéen xelam dafa yaatu maanaam góor xelam pour régler problème la problème bi teew na mu régler ko. maanaam tey soo jëloon góor problème kii nii xew moom mun na toog régler problème bi mais mais soo jëlee joxee ay problème yu bëri daanaka da ngay gis ne dafay xaw a changé mooy soo jëlee ko góor nga bàyyi ko kër ga nga bàyyi ko foofu noonu nekk tey yow yaay togg añ ba pare nga fobeere ba pare nga toppatoo xale bi soo ñëwee da ngay fekk muy dóoru xale bi soo mooy dóor parce que xale bi lu mu def da ngay énervé parce que affaire yu bëri la la affaire yu bëri la alors jigéen ki mun nga ko fa bàyyi muy fóot di raxas di togg ba pare di toppatoo xale bi te coow du yëpp te mu continuer noonu rek loolu naturel ci ñoom moo tax ci domaine bii nii domaine bu laajtee type de aptitude yooyu noonu maanaam type yi nga xamante ne soo xoolee ñun ci yu ñuy jot mooy cloner téléphone jël sa whatsapp cloner ko jël sa whatsapp cloner ko soo xoolee ñëpp dañ koy defaa ah, mais damay sànni xeet jigéen nee naa leen yéen ci gën a aay ndax dossier yu ñu fay jot en grande partie ay jigéen ñooy cloner seen seen téléphone jëkkër te da ngay gis jigéen jigéen bu jàngul mu mënu la wax dara ci français. mais mu xam loolu nu ñu koy defee ba pare mu def ko di ko di ko di ko yor ko donc bëri na tey ñi nga xamante ne ci loolu la ñu amee problème ci loolu la seen sëy yi amee problème donc loolu lu lu lu lu jar a bàyyi xel la mooy nag ci wàllum criminalité cybercriminalité euh, criminalité dafa bëri partie bi nga xamante ne ci xelu nit ki ngay dox maanaam da ngay utiliser ay ay machine mais xelu nit ki foog nga it nga nga nga it nga xam nan ngay naxee nit ki bon pour exemple bi ma mën a joxe ah, ci exemple bi ma mën a joxe mooy dañoo amoon benn mission am ay xale yu fi doon def ay ñaawteef di daw di dellu si Ziguinchor léegi nag bi ñu boobu dama dafa amul keneen ku yilif service bi man maa nekkoon adjoint bi mu dénk ma dossier bi ñu nekk fi ay mois di wër mënuñu pexe ba am dara ci dossier bi benn jour. ma woo groupe interpellation ma ne leen kaa leen dem Ziguinchor suñu fa demee war nañu am dara ñu dem foofu noonu ci numéro téléphone bi ñu wër wër wër wër ba gis ne borom numéro bi borom numéro téléphone bi électricien la wàllum courant lay liggéey maanaam ci sa carte d'identité dañuy bind sa métier yooyu noonu ma gis ne électricien te comme li ma la wax laa njëkk jàng donc am na un maanaam jot naa ci liggéey tuuti euh, ñu dem foofu noonu ma ne leen waa ji dañ koy jàpp. parce que comme électricien la foo nga xam électricien na lay xalaatee ak électricien lan mooy quotidien ma jël sama téléphone ma di ko woo ñu ma noo soo ko woowee day daw ma ne leen non du ah, ko ne ko waaw man de fonctionnaire laa dama jógee Ndakaaru ñëw Ziguinchor fii nii indi sama ay frigo andi sama ay bagage damaa bëgg ma ko installer tout de suite parce que sama kër déjà amul clim ma xaw ko euh, gëmloo ne maanaam dañ maa affecté foofu. mu ne ma mu ne ma mu ne ma ok euh, mais man damaa xaw a cher ma ne ko man cher du problème Dakar laa jóge wax naa la yor naa ay climatiseur mu ne ma mu ne ma non kon amul problème mais comme xam na ne en plus liggéey boobu noonu mu ngi def benn liggéey bu xaw a doy waar mu toog tuuti mu woowaat ma ne ma mais yow foo jëlee sama numéro boobu nag la xam nit ki am njëriñ ma ne ko mais yow ci kenkaayari bi laa jëlee numéro bi kenn seen kenkaayari koñ bi. parce que électriciens yi ouvrier yi dañuy bàyyi tout le temps seen numéro téléphone ci quincaillerie bi pour que moo bëgg moo ñu monteel ko lampe ñu kii ko ma ne ko foofu laa jëlee numéro bi soo ñëwul damay jël keneen mu ne maa ngi ñëw léegi mu jël motom te taxawuñu cinq minutes waa ji fël na sunu sunu kaw mu wàcc gaare moto bi ñëw ne ma kii nii ma ne ko waa kaay ñu dem ñu ñu dox tuuti mu ne ma ana bagage après nag boobu sama sama ndaw yi kenn ki ñëw lonk ci ginnaaw ne ko c'est la police bi mu ko nee c'est la police dafa tiit ba toog. mu ne mënatul jug tànk yi dañoo dee xam ne mënatul jug moom moo ñu conduire ci ñu ci des ba ñu mën a régler dossier boobu noonu donc intelligence artificielle maanaam dalay lay may capacité nga xam ne nu muy doxee maanaam moo tax ñuy utiliser réseaux sociaux yi dañ ci war a dañ ci war a def ndànk même yenn kilifa yi soo soo nekkee ci réseaux sociaux yi am na li nga xam ne waroo ko publier mooy exemple bi may joxee tey soo nekkee taalibe murit bu dëggu am na li nga xamante ne suñu la nee sëriñ bi wax na ko mënoo ci bañ a kii nii donc suñu gisee yow ci réseaux sociaux yi tout le temps ci am na li nga xamante loolu ngay publier ci loolu nga nekk ku la bëgg a nax foog loolu ñu sensibiliser la parce que ci la jaaree nax la am na attaque yu ñuy wax attaque par phishing phishing mooy mooy mooy un peu sooy napp jën sooy filet boobu noonu ngay sànni pour waay pour kii bi matt ko même principe bi la donc tey ku bëgg dugg sa téléphone ku bëgg a dugg sa téléphone euh, à distance te mënu ci dugg lu mu mun a def mooy da lay envoyé lu ñuy wax un lien maanaam da lay envoyé benn lien bi nga xamee ne soo ci cliquer rek sa téléphone bi day ubbeeku envoyé ko information yi te doo ko gis c'est transparent ci yow à niveau doo ko gis doo xam dara alors yooyu noonu tey soo ko bëggee kii nii ci li nga xër rek ci lañ lay naxee su ñu gisee ne tey sëriñ bi nangam sangam sëriñ bi nangam sangam deme su ma la bëggee kii nii ci sëriñ bi dama lay naan xoolal sëriñ bi lu mu wax euh, Euh, par exemple benn Serigne Ibrahima bi nga xamee ne xam naa ne ku kii nii dama koy envoyé rek ak lien bi ne ko li xalif bi wax ci ci Serigne diw après ma envoyé la nit ki automatiquement day cliqué automatiquement day cliqué pour jéem a xam Serigne bi lan la wax ci ci kooku loolu sooy cliqué téléphone di ibbeeku di di di manque say say données donc loolu yëpp dafa amaale partie bi nga xamee ne maanaam ku jàng intelligence artificielle da ngay jàngaale yeewute yooyu noonu. moo tax ci internet li nga soxla nga ci utiliser li nga soxlawut jarul nga koy publier sa vie privée par exemple jarul nga koy publier ci internet ndax ku la xam ku la xamal ba pare xam sa ngëm-ngëm xam yow sa say bëgg-bëgg kooku mun na la manipuler peu importe nag yow yaay kan nga peu importe yow yaay kan moo tax euh, yooyu noonu il est il est très bien ñu mën a sensibiliser nit ñi ci yooyu noonu ndax tey intelligence artificielle dafa gën a yombal yooyu noonu. Ah, dafa gën a yombal yooyu noonu pour nga mën a manipuler nit ah, nga mën a nga nga nga mën a manipuler donc am na beneen affaire mooy erreur de programmation yi ci ci ci ci ci wàllum intelligence artificielle ndax nit li nit defar kese la su dee ñun dañ koy tout le temps euh, jéegaane andi Sénégal dina dina dina poser problème ah dina poser problème parce que ni ñuy dundee ak ñee nu ñuy dundee du benn nu ñuy doxalee diine bu ñu gëm ak ñoom diine bu ñu gëm du benn. ñoom lu ñuy pratiquer seen diine ak ñun nu ñuy pratiquer suñu diine du benn donc loolu aussi lu jara lu jara bàyyi xel la. waaye tey aussi ci biirum intelligence artificielle toujours euh, beneen danger bi mu gën a am mooy lu ñuy wax destruction de l'emploi ndax dañoo nekk ci dëkk bi nga xamante ne. Euh, dañoo nekk ci dëgg bi eh, dëkk bi nga xamante ne ñëpp bëgg a liggéey soo xoolee ndaw yi tey soo génnee école walla université dina jafe pour ñu bëri pour ñu am liggéey pour ñu am xëy donc tey intelligence artificielle dina gën a yombal ñàkk xëy boobu noonu ndax euh, tey lépp lu nit doon def ñu koy fay soo xoolee intelligence artificielle dina ko def li ñu mën a euh, exemple ñu mën a joxe mooy ci usine wu par exemple usine wu yenn usines yu nekk ndakaaru usine beurre wala usine yenn yenn yenn fabrication yi ñi doon ñeenu carton yi di di di di di raxas yenn affaires yi léegi soxlaatu ko dafa am ay machine yuy départage lépp machines yi ñooy raxas machines yi ñooy defar lépp donc dootuñu soxla ay journaliers te am na ay journaliers yi nga xamante ne ci loolu lañu yaakaaroon donc loolu aussi jar nañu xalaat yi pour jéem a xool suñu réew nan lay intégrer loolu waaye bu ci gën a tiital nit ñi mooy mbirum arme de destruction tey euh, suñu xoolee li xew-xewu àddina mooy li xew tey euh, diggante Russie ak Ukraine Ukraine lu xew tey ci siri lu xew tey en Irak soo xoolee tey ay drone ñooy naaw maanaam avion yi nga xamante ne kenn nekkul ci biir kenn nekkul ci biir dañ leen programmer juste ñoom ñooy dem euh, sox bomb yi ñëwaat soo xoolee tey guerre yi guerre yi loolu moo leen mettal soo soo demee tey Russie euh, euh, Russie tey mbirum drone rek lañ fay waxtaanee maanaam même yeneen bomb yi tey drone yi moo ëpp njëriñ bopp kii yooyu noonu ndax drone yi am nañu intelligence artificielle mooy xelu mun a xàmmee kii euh, kii ci ñun la bokk kii bokku ci ñun mun nga ko ne jox ay tegtal xam nga loolu aussi boroomu xel nga ko mën a defal tey machine yi mun nga leen defal tegtal nee leen bëgg naa nga jaar fii nga jaar fii nga jaar fële donc tey drone yooyu noonu. maanaam xam-xam bu ñu nekk di di utiliser la bu baax dafa baax ñu ci suñu réew ñëpp xam ne loolu am na ba pare ñu càmbar ko jéem a xool ñun tamit nan la ñuy amee euh, xam-xam yooyu noonu. parce que dafa am na aussi euh, benn benn benn borom xam-xam bu ne soo gisee tubaab bi noot ñu du ëpp ñu doole mais ëpp ñu xam-xam kese la woon maanaam xam-xam ci wàllum àddina mooy def defar ay armes defar ay defar ay bateau li nga xamante ne ñun defaruñ ko waaye du du seen njàmbaarte donc loolu tey jar na ñu ñu ñu def tu pour comme lu ñuy jàng kese la lu ñuy jàng kese la loolu tey jar na ñu koy jàngale. waaw ci ci ci jeexal nag mooy débat tey intelligence artificielle ak wàllum diine euh, mooy li ma leen wax maanaam euh, intelligence artificielle tey la fekk ñu mën a monter ay vidéo maanaam mun nañu defar laal ci sa ngëm-ngëm li nga xamante ne. foog nga ne nit kilifa moo wax loolu noonu fekk kilifa gi mosu kaa wax mun nañ tey eh, maanaam wëlbati waxu nit ba gëm loola li nga xamante ne lii bokkuloon ci sa ci sa ngëmukaay donc loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a lu jar a xam la beneen affaire bi mooy ci intelligence artificielle euh, tey am na njëriñ ci wàllum diine parce que dina dina dina dimbali pour ku bëgg a càmbar ay textu diine nga mun ko càmbar ci ci anam yu gën a yombee maintenant nag question bi may posé mooy tey intelligence artificielle maanaam luy comporté wu comme lu am ruu te du lu yàlla defar lu ci diine wax loolu nag jox naa ko jox naa parole bi nitu diine yu fi nekk boroomi xam-xam yu fi nekk waaw maa ngi leen di sant lii laa bëggoon développé di xaar seeni question pour ñu ñu gën a yaatal waxtaan bi jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Ali Kande noo ngi lay sant bu baax ci turu kuréelu mu assasatul wafaay bi xuquqil iman noo ngi lay sant bu baax te di la ñaanal yàlla mu barkeel xam-xam bi te gën koo yaatal mel na ni waxtaan wi li taxoon ñu tànn la ngir nga ànd kook ñun am nañ ci lu kawe suñ njort matale na lool am solo bu am solo yaakaar naa mënee su koo takk boo jàngatee jataay bi rek niñ bàyyee xel seen xel ci jataay bi ci teewlu ko loolu moo lay wane am solo bu waxtaan wi am solo ndax day mel na lu bari li nga doon waxtaanee luñ dund la te amuñ ci pexe kon ñu ngi lay sant yàlla ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla mu defal la tawfeex ak jàppandi ci liggéey bi ngay def mel ne waxtaan wi de am solo gum am solo tax na laaj yi xaw naa takk ngir njëkkante waxtu wi dañuy jox oustaz Ahmed Mbaw mu jàllale li nga xam ne moo fi rot ci ay laaj bu ko defee ñu daaneele foofu kàddu gi di fàttali suba incha allah ni ñu ko waxee woon sëñ xale yi mu sëñ Fall moom la ñuy dalal fii ci waxtaan wi incha allah. salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weer wu sell wu tëdd wi. commissaire ñu ngi lay nuyu di la ñaanal sunu borom yàggal la te wéral la te bàyyi la ak sam xel waxtaan wi am na solo lool ay bokk ngi ci jëriñu ci biir jataay bi waaye ay bokk ngi ci jëriñu ci fu sori boobu ba léegi sama téléphone mu ngi sone ay bokk di rafetlu waxtaan wi mu ni kii da doon laaj képp koo xam ne dafa faral di yàq deru doomu aadama ci wàllu internet yooyu yan daan moo ko ci mën a fekk euh, am benn téere bi nga xamante ne moom moo dégg ñun ah moom moo ñu dégg euh, moom moo dégg aussi ñi ñi àtte ci ci wàllu yoon euh, wàllu diffamation ak injure maanaam kooku di yàq dër bi ak ko saaga maanaam tey soo xoolee code pénal am na article yu ko prévoir de sorte que mun nga jël ci wàllu loolu noonu nga ci mun nga ci jël ba deux ans maanaam mun nga jël ñaari at kaso ci wàllu diffamation boobu maintenant nag.

laaj bi am na solo trop <laughs> en am léegi euh, lu mel lu la su soppeeku waaye waaye mu ngi moom moom moom société bu ñu tuddee Tesla Tesla ah. moom moom moom euh, bànqaas boobu noonu ñu wax Tesla te muy defar oto yi nga xamante ne courant la ñuy dawee yi nga xamante ne du jël essence mais courant la ñuy dawee kooku nag dafa yor beneen entreprise beneen bànqaas bi nga xamante ne day def recherche ci wàllum intelligence artificielle yor na beneen bànqaas bi nga xamante ne yor na ay fusée yuy dem ci ci jaww ji di di di wàcc si maanaam ci ci àdduna bi bokk na ci nit yu ëpp alal aussi dañoo defar temps yi ni benn benn genre bi nga xamante ne. dañoo projeté nit di jël puce comme ni téléphone di jëlee puce maanaam dañoo jàng yuuru nit jàng nit nu muy fonctionner ba xam nit kii nii lii mooy permet lii mooy fonctionner loo lii lii mooy defar lii lii defar lii léegi puce yooyu dañoo ne suñu ubbee sa bopp ñu defal la ko maanaam dalay jox ay capacité surhumaine maanaam li fi nit mënoon yem nit normal lu mu mënoon def yow mun nga def fukk wala lu lu ko raw maanaam ci wàllum jàng su doon nit ki day jàng benn affaire. ay mois ay mois pour mu mokkal ko yow soo ko liiree benn yoon rek doo ko fàtte ci wàllum gis defar nañu ay ay ay lunettes yi nga xamante ne xam nga am na nit ñi nga xamante ne dañu gaaw fàtte taseeg nit fàtte tour bi kan la wala kii mooy kan wala ma fàttali ko tur bi rek fàtte lan ngay ban position ngay occupé am na ay lunettes yu ñu nekk di defar yi nga xamante ne intelligence artificielle bi su gisee nit ki ci loolu la ñuy wax la réalité augmentée. da lay gisaale mais day gisaale à côté mu ngi tudd Serigne euh, Nangam moom mooy coordonnateur daayira Nangam loolu da nga koy gisaale donc mbirum puces yooyu noonu gis-gis yi wuute na ci wuute boo xam ne am na ñi nga xamante ne dañ cee tiit parce que nee nañ loolu suñ ko defee li nekk li taxoon nit nekk nit li tax euh, nit euh, ñu mun ko ne lii nit la da koy dindi yóbbuñu ci beneen affaire bi nga xamante ne xamuñu ko. te commencé nañ expérimentation yi am nañoo ñi ne defal nañ leen ko ah, defal nañ leen ko donc loolu technologie bu am la te ci mbirum intelligence artificielle la wundu mais loolu mooy lu gën a avancé ci mbirum technologie euh, euh, intelligence artificielle. jërëjëf <laughs> lii nii nag xam naa étudiant wala élève moo ko posé. wax na dëgg wax na dëgg question bu mu posé nii question bu am solo la ba pare en fait euh, xam-xam sakku xam-xam du du du parce que sëriñ bi dalay lay woo pour nga nafar nga nafar rek fàtte sakku xam-xam soo koy sakku pour mu des ci yow la nga mun ko jëriñoo léegi tey IA mooy IA mooy mooy intelligence artificielle tey soo xoolee élèves yi soo leen joxee exercice ne leen dem leen defi ko kër ga exemple bi ma leen di jox dama damay jàngale école police. commissaires yi suñu leen recruter ak école magistrat yi aussi dama fay jàngale. Euh, école police dama leen jox benn examen bu xaw a gudd nee leen jox naa leen une semaine pour ngeen xalaat ci xam nga lu ñu def ñu jël a ñu jël li ma leen laaj ñu dugal ko ci intelligence artificielle bi intelligence artificielle développé ko développement bu joxe ay réponses yu garaaw yoo xam ne bi ñu ma rendre copie yi dama lire rek xam ne lii du ñoom ñoo ko defar parce que li li ni ni affaire bi répondre xóot na xam ne. xam naa ne comme du loolu lañ jàng xamuñu xamee wuñ loolu noonu ma ne leen lii fa ngeen ko jëlee <laughs> ñu ne ma ci intelligence artificielle bi donc dina taayalloo euh, intelligence artificielle pour kuy def recherche baax na ci mais waroo sukkandiku ci intelligence artificielle pour sa jàng da ngay da ngay am ay problème beneen problème beneen question bi est-ce que ce n'est pas une limite de réflexion en tant que chercheur waaw loolu aussi loolu aussi dafa ne maanaam ñi nga xamante ne. Euh, ay gëstukat lañ ci wàllum xam-xam xam nga dañuy bind ay téere dañuy génnee affaire yu bees mais léegi ñooñu suñu demee ba téere yi ñuy bind ci intelligence artificielle moo leen ko bindal te intelligence artificielle mun na ko ah da ngay ne ci lii laa bëgg a bind thème bii laa bëgg a bind nga expliqué ko mu bindal la téere bi dalay jox axe yi nga mu développé la lépp lépp donc loolu tey su nu demee ba borom xam-xam yi amatuñu xam-xam waaye dañ kaa délégué intelligence artificielle bi dina poser problème bu rëy parce que dinañ dem ba. machine bi moo lay ëpp machine bi machine yi ñoo ñu gën a muus te loolu lu lu lu jara moytu la moo tax ci école jàngalekat yi léegi soo rendre examen dafa am ci beneen intelligence artificielle buy wër xool est-ce que intelligence artificielle bii nii lii nii du intelligence artificielle moo ko génne comprendre nga li ma wax maanaam professeur bi soo ko rendre copie bi am na yeneen intelligence artificielle yi nga xamante soo ko fa dugalee dina la wax lii est-ce que intelligence artificielle beneen moo ko defar wala nit moo ko defar. donc loolu tey université yu mag yëpp dañ koy jëfandikoo soo leen joxee benn liggéey dañ koy dugal foofu càmbar xool xool d'abord est-ce que du liggéey jàmbur nga nga jël mooy loolu la ñuy wax plagiat lu diw bindoon nga bindaat ko rek ne man maa ko bind wala benn li nga jëlee ci benn téere nga bañ leen wax ne ci téere nga ko jëlee mais nga ne yow yaa yow yaa ko yow yaa ko créé fekk du yow yaa créé donc loolu effectivement ñi posé question bii nii xam naa ne euh, ay ay ay boromi xam-xam lañ parce que question yi ñuy posé nii question problème yi ñu rencontré sur le maanaam du du question yu ñuy inventé nii nii mais foog nga dund ko pour xam ko kii nii dafa ne les audios WhatsApp supprimés où sont-ils enregistrés en fait li ñu war a xam mooy ci ci gàttal ah, ci gàttal mooy. Euh, ci gàttal ci tënk. amul dara looy supprimer sa téléphone te mu supprimer wu ñun bëri na ñu ñuy convoqué nee la ñëwal ñëwal service li tax ñu convoqué la dañuy jël téléphone bi supprimer lépp balaa ñoo ñëw waaw ah, balaa ñoo ñëw waaye suñu jëlee dugal ko ci machine bi am nañu comme li ma leen wax ay xarala yi nga xamante ne duñ ko fi tudd mais yi nga xamante soo ko dugalee ci machine bi dalay won lépp lu mu supprimer kañ la ko supprimer lépp waaw ah, donc supprimer effectivement ki ki ni laajte audio yi audio yi dañuy des téléphone bi dafa xaw a technique maanaam index pour euh, xam naa ne ki ko laajtee euh, xam na tuuti dara informatique am na lu ñuy wax index maanaam liy joxoñ foofu fu mu nekk loolu la ñuy dindi lool loolu ngay foog ne supprimer nga dafa mel ni tey ku bëggoon euh, supprimer Daaru Musti ne no du Daaru Musti day yoon bi mu effacer yoon bi waaw loolu du tere mu dindi tali bi tali bi du tere nit ñi mën a accéder Daaru Musti donc loolu loolu ci la maanaam données yi dañuy continuer di exister mais cet index mooy dañ donc euh, ci ci ci misaal. Uh-huh. waaw question boobu nag fépp fépp lañ ma ko posé waaye nag am na li nga xamante ne euh, ëpp naa wax ci mbooloo mais xam leen ne xel bi ngeen ci am am nañu ko amoon ba pare. am na ñu ko amoon ba pare waaye ki nga xamante ne dafa aay hacking généralement dañuy lamboo ji koy caay-caay bi nga xamante ne du denc ci ñoom ah du denc ci ñoom mais question bii nii su ngeen ma mayee mun bëgguma du xuus torop ci luñ ci kii nii mais xamal ne xalaat bi xalaat bi nga xalaat ni nit ñi xalaat nañ ko effectivement xalaat bu baax am nañu ko xalaat ba commencé woon ko jëfee waaye nag euh, joxewul woon lu ñu lu ñu lu ñu xalaatoon <laughs> ki day laaj mu ni robot yi nga xam ne dañoo am artificiel bu ñu defee lu ñu wërta def luñ luy àtte bi tey nag euh, kii nii te posé nañ ma question bu kii nii mooy mooy amoon nañu benn mag euh, professeur Lo bu ñu doon jàngal soo ko laajoon lu mu xamul da comme mag la woon da lay naan yow da nga bëgg a test sa connaissance baay man seen baay laa <laughs> donc <laughs> donc lii nii pour wax la ne maanaam ci ci sunu ci sunu réew amagul législation bu encadrer domaine bi nii amagul li ñi ko amagu mooy Europe te temps yi je pense motagul une semaine ba léegi nii conseil de l' Europe soo tapee ci internet ñoo ngi ciy waxtaan ah ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy waxtaan maintenant nag euh, xam naa ne am na ñu may gën a mën a wuyu question bi nii parce que wàllum yoon la wàllum droit te lii nii question bi mu posé nii question bu pertinente la te man mii dinaa ci def ay gëstu mais amagul encadrement Sénégal amagul encadrement parce que Sénégal encadré gul loolu. Euh, voilà kii euh, dafa posé benn question mu wax benn constat bu am solo mu ne mais téléphone yu ñu sàcc ah, téléphone yu ñu sàcc euh, tout le temps seen localisation du du joxe dara ah, du joxe. yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi